mbokk téléspectateurs yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci yenent bi salallaahu alayhi wa salaam euh, suñu émission bi nga xam ne si nii muy li ci marché li ci marché nag tey dafa ñëw fii suñ boutique bi nga xam ne si nii mag muy maximum maximum nag euh, moom ay prêt apporte lay jaay xam naa dama sama cameraman topp ma ñu dem ci biir rek ñu mën a fësal li nekk si macha allah bi boutique boutique bi nga xam ne si nii mooy maximum maximum nag euh, prêt à lay jaay yéen ñi nga xam ne si ni euh, yéen a ngi jublu ci fourniture yi lu ci mel ni ouverture yi euh, xale jigéen ñi muy élèves yi dañ fiy jaay yére xale dañ fiy jaay yére mag mais xam naa ne damay ñëw rek daagu ndànk rek dem ci responsable boutique bi mu am ñu mu def ak ñun ñu waxtaan ñu xam. waaw comme ni ngeen ko comme ni ngeen ko safoo di ko xoolal mi ngi nii ñu ngi fii nii ci boutique bi nga xam ne si ni muy maximum maximum nag ay prêt-à-porter lay jaay yi damay ñëw ci sama responsable rek wax ko moom ndax yan. qualité yére la jaay ak dañuy jaay yére xale wala yére ma soxna si maa ngi lay maa ngi fi maa ngi lay laaj sa tur ak sa sant naka la. waaw man day Penda laa tudd. maa ngi fii comme caissière maximum Kër Massar. ñun nag dañuy jaay yére xale dañuy jaay yére mm, homme ak femme enfant yëpp la jaay. ñu jaay ay daal marque Zara Pull&Bear. les gens instant dañoo nekk en solde moins 30 pour cent 15 000 10 500 12 000 8 400 yi 10 000 7 000 pour yére xale yi aussi yomb na de. ah kon da ngeen di jaay yére xale. waaw am de yére xale. Ah, yére xale yi mënumaa daagu ndànk Il y a yi ngeen di jaay si euh, euh, Euh, su ko defee waa waa Kër Massar xam yéen yi ngeen di jaay yan la ndax maximum nekk na euh, boutique prêt à porter boo xam ne si ni maa xaal macha allah njëg li dafa xéwale njëg li xéwale na maa ngi lay waxal de est-ce que njëg li na. ah xéwale na kay <laughs> instant t-shirt xale yi ak eau yi ñu ngi koy jaayee 2100 francs. xale yeeg euh, ñu ngi koy jaay instant yi 2100 francs ak eau yi. Mhm. léegi ñuy jaayee short itam 2100 francs ak 2800. waaw robe bi nag 3500.

homme ak mm. enfant la ñu jaayee. Ah, homme ak enfant. mais gis naa ci daal di xale góor yi rafet macha allah ku ci mel sama caméraman daal yee war nga cee war war na cee mën a soldé. <laughs> sama caméraman jëlal ma bi man bii laa lay yéene. bi nga jolof bii. ah 7000. ah macha allah xoolal ma li chéri ñëwel ni comme si ni su ko defee euh, mu mën laa mën a jël bu baax. bii xoolal marque lañ ko doon jaay mais instant nañ koy wante 7 000 rek. njëgg xéwale macha allah marque la la. marque plombier la en plus euh, ci promo la nekk 7000 francs rek lañ koy jaayee kon nag ñoo leen fii lii ndimbal jaboot la de ah. bi 1400 bi dañ koy wanteer ah waaw <laughs> ak yi macha nekk ci xale yi xale yi nga xam ne seen fourniture bi instant yi moom moom moo gën a wala daal yi xale yi yëpp ñu ngi ko doon jaayee 10 000 léegi ñu ngi koy wanteer boo jël 7000 daal xale boo jël 7000 la instant am nañ tam ay sakos yoo xamante ne 2100 francs la mhm. saagu xale yaa ngi nii 4900 waaw la ñuy jaayee saagu xale. kàr la dégg leen maximum nee na euh, ñu ngi ci xale yi ñu ngi ci mag ñi wane na fi ay dàll yoo xam ne si ni macha allah tarkal la dàll yi moins cher yoo xam ne si ni ay mille tey jii nii boo ko doon jënd mën na nekk dikkee la 15000 wala mu dikkee la la 20000 te dàll yi. Euh, si jàmm bu baax fi ñu nekk euh, rayon homme la wala mooy rayon femme. vraiment yéen a ngi rayon homme vu que ne jóge ngeen ci kaw foofu la rayon femme nekk fii mooy rayon homme mm. dama lay laaj eh, yeen eh, ki comme ça ne patch yi ni sorti sorti rafet lañ am. Mhm. sorti ça varie entre amna bu 3500 amna bu. won ma yu 3500 et eh, man dama am xolof xolal bingal. sama sama sama sama ki bi xolal num tud américain la dé eh français mi dafa neex ni mi prononcer ni eh li dina ma neex jangal mako <laughs> alors il euh, y jar 3500. Mhm. Zara euh, il 4200. Mhm. Zara comme par exemple bi bi 4900 lay jar. Eh, lii dina ma neex. tu vois ah euh, short été en plus on est en promo. Mhm. Euh, c'était 7000 avec la promo muy 4900. déggal lolu short bi ni bingal man yéene naa la de hein ah. li bo ci def ak tàngoor bii nii surtout nak plage nga wara meuna dem plage defé ko ni en ah, soxna c'est lolu day fay. bi la la laal surtout Zara surtout marque la ñuy jaay ay marque. ngeen mais yow ñu ci loolu dama bëgg pantalon yi nga wan ma tamit am na ñoo xam ne dañuy soxla ay pantalon. xoolal sa yëpp am nañ ay pantalon Zara ay pantalon plein biir bon am nañ taay yëpp lañ am du 38 jusqu'à 48. est-ce que njëg li njëg li xéwale na. xéwale na euh, yiy jar 7000 moo ngi jar 4900 yiy. ana yiy jar 7000 ana yiy jar 7000 ndax moo nit ñi gis ko. Bon, prix de base, c'était 7 000. Mm -hmm. Avec la promo, mon 4 900. C'est abordable. macha allah déggal loolu nee prix abordable lan leen di defaral euh, jiin yi baax la te yii yu fi nekk marque kese mais. ok voilà am nañu ay chaussures voilà c'est du. li saaliw saaliw. xam naa ne artistes yi dañ koy xam ñi nga xamante ne dañoo fashion. duñ ko ragal actuellement mu ngi jot 10 500. lay wax ni eh, eh déglu ma lii ñaata nga ni. 10 500. lii ñaata nga ni. 10 500. macha 25 000 bien sûr que oui. Ah c'est du fluo xam nga mhm. pour être là. ok yii aussi c'est pareil. Mhm. tout article qui vous donne 15 000. 10 500 lay jar. fa militaire. yéen daal maanaam daal man fii moom buñ fi doon buñ doon xëy suba ba ngoon duñ fi jóg ndax boutique bi boutique bu abordable la bu présentable la te boutique bi nekk la loo xam ne si ni ko ko seen boo da nga yaakaar ne ñëg gi dafa seer mais lu moins cher la am na yëre xale am na yëre mag bu len demati koloban man man man man bayina koloban man bayina koloban marché koloban uh-huh. ngeen di bay ñu len fi di jënd ci marché yi sol sol gis wo len ma lima ma sañse la xalé yi di wour wa dama lay laaj li ni fii nga ko ah, ah ba wi fi la ko c'est du Zara mbokk téléspectateurs yi ñu ngi fi nak euh, ci euh, rayon homme lañ jógee tay ji ñu ngi ci rayon femme euh, rayon femme nak xamna dama ñëw rek dagu ndank dem ci sun responsable bi nga xam seeni muy babakar babakar ma ngi lay nuyu maa lay fay maa lay fay bu baax a baax. tey dañoo jugee euh, ci suuf rayon homme ñu ñëw fii nii ci euh, rayon femme moo wax la yenn qualité ngeen di jaay yenn euh, ay dàll wala ay prêt à lépp yi ci nekk yëpp lekk nga mën maa xamal yan ak yan la. oui maa lay nuyu ah, vraiment di la delloo nuyu bu baax a baax fii nag ça va ah, fii moom am na lépp vraiment am nay nu-pieds am na escarpin am nay talon am nay basket am nay sandal fii moom lu manqué rek. loo gisul rek fii boo fi ñëwee di ko gis ko tarkalla xale bu jigéen bu bëgg a sañse wala feraso yéen bu ñëwee di leen di ko jaay daal jaay ko yére li mu soxla lépp dina ko fi ah. fii moom mhm. sol marque di sol qualité te doo génne di ko gis fenn xam nga sañse neex trop nga sol loo doo gis keneen koo sol waaw loolu moo neex sañse en nga xam nga nan la danga mooy topp rek nga woon ma de sama cameraman nag topp ñu ñu ñëw man bala maa dem fenn ci daale xam nga man rabi daal laa yore <laughs> waa yii daal ah yii yii de su ma ko laalee moom daf may neex mbaa njëgg xéewale na. waa xéwale na trop ndax saa ñu ci mooy de pour cent li mhm. doon jar 10 000 yu si bëri léegi 7000 lay jar mhm. am na yu doon jar 7000 aussi léegi day jar 3500 mhm. yi doon jar 5000 day jar 3000 waaw léegi daal njëg li xew na daal vraiment xéwale na trop awee ah nee na nee na li doon jar ay 7000 francs ñu ngi ko wàññi ba ba mille kon maanaam ñu ngi nekk ci promo lu ci mel ni ouverture ak élèves kon xanaa suñ leen déggee war nañoo daagu ndànk ñëw fi surtout loolu nag ça facilite les choses en fait surtout parents yeeg yooyu noonu mhm. jarul ñu dem fen di son seen bopp mhm. nañ ñëw fii fii njëg li xéwale na te aussi dinañ jàppale ci ouverture yi quoi dëgg neexo sama caméraman lii duma ko laal eh gisal ma bi bi boo ko solee ba ci def sa sa sa sa sa sa sa sa sa t-shirt bu baax ah, ah? loolu teg say basket ah dali dina ma neex mbaa mbaa xewle na waaw xewle na trop yi mooy doon jar 10 000 léegi 7 000 lay jar waaw 7 000 waaye 7 000 francs lay jaraa ah way te aussi marque la du ay care de waaw sinon laalu Eh, marqué la yi nga war ko sol <laughs> ne affaire yi njëg li xéew la maa ngi gis na la trop mbaa client yaa ngi ñëw bu baax non ñu ngi ñëw moom vraiment ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw instant yi ngi ciy gis seen bopp waaw ñu si gis suñu bopp à 100 pour cent ah. vraiment waaw alhamdulilah kon léegi kon xam naa kon sama cameraman mën nañoo topp fële rek su ko defee boutique bi moom li ci nekk yëpp macha allah lépp ngi si foo xalaat loo xalaat li jaay rek man dama naan boutique junne laa ko tuddee ndax loo loo xalaat fii rek am na ko kon euh, dama lay wax euh, sa li ngay li ngay tàggatoo ak clients yi ak boutique bi fi mu nekkee ak sa numéro. waaw waaw maa ngi rafetlu d'abord ah. seen ñëw fii rafet maa ngi koy rafet trop aussi di ci aussi client aussi maa ngi kontaan si ñoom ah, vraiment ndax ñoom ñëpp Kër Massar mooy loolu koo ji wax Babacar Babacar bitig maximum bitig maximum ñoom naan nañ ma quoi vraiment ndax bëri na si ñoo si xam ne muy anniversaire muy réception lu ñu am fii la ñuy ñëw te maa leen di sañseel vraiment. waaye léegi dama laaj euh, numéro téléphone bi ak boutique bi fu mu nekkee maximum xam nga nit ñi mën nañoo dégg maximum te xamuñu maximum ndaxte mu ngi ci côté banque agricole bi boo ñëwee juste rek da gis immeuble bu blanc bu ñu bind tableau maximum maximum boutique quoi numéro bi moom comme dab xam naa bëri nañu ñu ko yor quoi. mais soo ko mënee jàllale euh, téléspectateurs yi leen seetaan buñ ko xamul mën a ñëw fii. waaw numéro bi moom moo loolu. 77 la 606 45 36. waaw benn numéro laa yor. waaw déggu leen mbokk téléspectateur xoolal moom joxe na numéro boobu waa dama la laaj xibaar 221 noo ko gisee. waaw waaw maa ngi rafetlu seen liggéey vraiment. vraiment li lu ñu bëgg la aussi li xool la lu ñuy seetaan la daal vraiment kontaan nañ ci trop vraiment seen liggéey. émission bii ni nga tudd ne tudd li ci marché yow tamit noo ko gisee ndax li ci marché moo leen fësalal lii ah. bi contentement la ndaxte yombul vraiment. bu doon ñu ngi kese ak bitig yi yaakaar naa lu ci bëri dina des mais lii nii day yombal lu bëree bëree bëri day tax ñi xamu woon xam ndax bëri na instant bi Kër Massar wala soit fenn ak fenn ñuy dégg maximum mais xamuñu exact fu maximum maximum yi kon damay rafetlu seen liggéey bu baax a waaw mbokk téléspectateurs yi comme nun ko safoo du ko defee maa ngi remercier ni Babacar mi nga xam ne si ni moom laa nekkoon di di euh, ñëw boutique bi nga xam ne si ni muy maximum euh, xam naa ne émission bi nga xam ne si ni muy euh, li ci marché li ci marché nag képp koo xam ne du ma taay di ko wax képp koo xam ne si ni am nga sa njaay mooy bëgg ñu fësal la ko boo ñëwee ñu fësal ko kon nag maa ngi am kontante xam naa nag bala maa jàll ci loolu damay remercier sama caméraman bi nga xam ne si ni macha allah muy Bingal Jolof nga xam ne si ni lu mu laalul baaxul xale la boo xam ne si ni man dama ko téye si sama loxo ndax dafa mën li muy def macha allah su ko defee nag ma nuyu waa yëmbal yi nga xam ne si ni ñu may seetaan ñoom sama yaay kon ñu ngi leen di def euh, même émission ba beneen yoon incha allah ci même heure